77 046 96 23 xar yëpp xar lañ waaye laa dum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax Sénégal métti na jamono ji tàng lool li ko waral mu di arrestation bu Ousmane Sonko mu mel ni ci luy wañax la benn ruq sa seddul ndax bu ñu xoolee ci biir ndakaaru ak yeneen raison yi kenn ku ci nekk yaa ngi génn di fësal saw naqar tey ki suba nag université Cheikh Anta bu ndakaaru eh, tàng na te métti lool jamono ji may wax ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di étudiants yi ñi ngi jàmmarloo ak takk der yi mu mel ni dal dinañuy renforcer li nga xam ne moom moo di eh, seen i agent ñu gis encercler li nga xam ne moom moo di université bi euh, ci porte bu mag bi ba ca bu ndaw bi ba ci corniche bi euh, lépp ay takk der la ndax te euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo di étudiants yi dañoo dispersé wu di xeex xeex bu metti ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di takk der yi jamono ji dal dinañu fay yàq yàq gu métti métti am na ci ñu ci jëlee ay gaañu gaañu waaye fësalaguñu benn nit dal na ci ñàkk bakkanam ñi ñàkk seen bakkan ña nga ca Bignona ginnaaw manifestation bi tey tam ci ndaw boo xam ne daal dina ñàkk ba kanam li ko waral mujj eh, ñi nga xam ne ñoom ñoo di om de tenue ñoo ko daal di dóor bal eh, mu ñàkk ba ci saa si waaye terewul ba tey ñi nga xam ne ñoom ñoo di ndaw yi Bignona eh, jamono ji itam ña ngay continuer di amal la nga xam ne moom moo di seen i manifestation naam ñàkk nañ ci seen ndaw waaye terewul ba tey dafa mel ni dañoo gën a mer gën a fippu xeex bu mettee méttee métti yàq ga itam daanaka jamono ji lépp loo xam ne état bi moo ko moom ca Bignona ndaw ñi daal dinañu koy yàq bu ñu xoolee li nga xam ne moom moo di euh, ca université Cheikh Anta bu Ndakaaru bu ñu fa delloo daal dinañuy gis ne ñi nga xam ne ñoom ñoo di euh, journalistes yi euh, daal dinañuy am ay jafe ci am accès ci li nga xam ne moom moo di jot information yi leen fa yóbboo li ko waral mu di takk der yi ginnaaw bu ñu janoo ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di étudiants yi ba noppi dañoo dal di tourner ci li nga xam ne moom moo di euh, journalistes yi ngir aaye leen li nga xam ne moom la ñuy def euh, ngir ñu fay seen i caméra ñoom itam euh, jamono ji ñu ngi janoo ak li nga xam ne moom moo di journalistes yi bu ñu sukkandikoo ci kàddu ñi nga xam ne ñoom ñoo fa jot a teew journalistes itam dañuy xool li nga xam ne moom moo di seenub liggéey ginnaaw am nañ ci droit bu ñu sukkandikoo ci li nga xam ne moom moo di éthique ak déontologie am nañ droit jàllale lépp loo xam ne ay information la yu wér te wóor te jamono ji li waral seenub xeex ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di takk der yi xaw a metti ñu ñëw fii ci parcelle Parcelles yi euh, ci euh, côté kaas bi euh, jamono ji mi ngi tàng metti lool mu mel ni daal ndakaaru fu waay tournée jamono ji xeex baa nga mel ni tulleeg màlle li mu ñuy rappelé nag da ciy bokk ne ba góor jaayee mbamma ne noppee du dem li waral ndaw ñi fippu ba tey daanaka jaaxal na lépp ñëpp ndax moo di coowal Ousmane Sonko dafa mel ni dafa mayaale li nga xam ne ñoom ñoo di ñeneen ñi mu nekkoon ci opposition bi sax te faruñoo ak Ousmane Sonko ñi fipp loolu lay firndeel ndax dangay daje ak ay ndaw di leen laaj ci ban parti la ñu bokk dañu naan la bokkuñu ci Sonko waaye dañoo sonn sonn ci ki nga xam ne moom moo di njiitum réewum Sénégal jamono ji Pikine ma ngay euh, bax daanaka. kenn ku ci nekk yaa ngay xool naka ngay rawalee sa bakkan la ko waral itam ndaw ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ca diggante Pikine ak Géejawaay daal dinañuy génn ngir fësal seenu naqar ginnaaw ni ki démb Ndakaaru la ñu waxoon tey nag ci li nga xam ne moom moo di banlieue bi tam daal dinañuy jël seen wàll ci li nga xam ne moom moo di nar wi la ñu def moo di ca diggante Géejawaay ak tribunal bu Pikine ña ngay saccagé li nga xam ne moom moo di tribunal ba baare yoon yi taal ay pneu lacrymogène yi jolli diggante ñi nga xam ne ñoom ñoo di ndaw yi ak ñii di takk der yi ñëwee fi nga xam ne moom moo di euh, ci cité Fadia élèves yi nekkee euh, ci école privée yi ak lycée euh, bu Fadia daal di nañuy génn ngir nag ñoom itam daal di manifester wu ngir wane ne ci ndaw ñi ci réew mi la ñu bokk li ñu def moo di ñi nga xam ne ñoom ñoo di élèves yu Parcelles Assainies LPA. ñoom ñoo daal di fipp génn ne wax libéré Sonko daal di dem fépp foo xam ne école la euh, bu nekk ci alentour bi ngir génne ñi nga xam ne ñoom ñoo di élèves yi ñu àndandoo nekk aw say li ñuy saytu wala li nga xam ne ni moo leen naqari ba waral tey ji ñu daal di def li nga xam ne moom moo di grève bokk na ci euh, seen professeur yi nga xam ne daal dinañu leen di jàpp jamono ji euh, teg tëj leen ak itam li nga xam ne moom moo di Ousmane Sonko mi nga xam ne daal nañu koy teg ñu dem ca technique ba nekkee ca jamono ji li xew ci Parcelles Assainies moo fa di génn li nga xam ne moom moo di seen moroom élèves yi jàng amu fa ñoom itam dañoo def li nga xam ne moom moo di grève bu 24 heures jamono ji dal dinañuy wax nag ne dañoo bëgg a jàng te itam réew mi jot nañu daal di koy tegaat ci raay bi te dañoo gis ne désordre bi fi am kenn waralu ko ku dul njiitum réewum Sénégal bu ñu ko tënkee lépp lépp lépp mbir mi gën a tàngee wala fi mu gën a mu di ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru suñu natango ba ñu fa teewal euh, du ñàkk ñu dal di dégganteek moom wala ñu xool euh, jamono ji ndaka lañuy def ngir indi leen ko en waaye li leen leen indiloon ci résumé bi euh, pour wax leen jamono ji yan ruq ñoo gën a metti ci Ndakaaru walla manifestation yi ci biir Sénégal euh, fan la ëppee wala fan la nit ñi gën a sonnee bu ñu ko tënkee lépp lépp diggante démb ak tey ñu baree bari euh, jot nañ leen cee teg loxo lu ëpp juróom fukki ndaw ñu baree bari jot nañ cee am ay gaañu gaañu ba jamono ji ñu ngi hôpital ñu ngi leen di saytu waaye tey ci suba fësal nañu ne am na ku ñàkk ba kanam ca Bignona ñu leen di jox di daje comme xibaar yi ñu ngi wéy di ko topp Sunugal 24 lépp lu ci yembaat dina ci dikkaat ànd ak yéen ngir andi leen ci ay leeral ak jamono ji euh, fan la yëf yi ci biir Sénégal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 77 046 96 23 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu nee góor ngóoraa tax